tey nit kaa ngi nii nit ki nan la tudd nit ki moo tudd Cheikh Ndiaye yaayam tudd Faty jóob léegi boo adatee Cheikh Ndiaye moo lay jox 1624 1624 yi moom ngay dagg rawxaan 1624 da ngay dagg kon deel mooy 4 nga jël 2 bi mooy 20 nga jël 600 bi muy xaa bii léegi nga jël 1000 bi. nga xam nga ni tuur baa ngi nii dakka xasa ya xasa yaa iilu mooy rawaxaan bi dinaa si ñëw xuddaam nit ki day am xuddaam xuddaam bi mooy lan pour muy leeral xoddaam yoosin la sant dakka xasa yoosin waaw yoosin léegi bu ñu xoolee tey seex euh, ku tudd seex saraxam dëgg dëgg dëgg sulmaan lay doon ndax ñaar yi ñoo ci ëpp mooy tey lii nii sulmaan la muy diggante mille ak cinq cent muy sulmaan yi xam nga moo ëpp moom moo ci ëpp léegi nag euh, la xam nga lu muy faral di saraxe mooy deret muy lu xetoog yàpp ndawal moom lay faral di génne di ko saraxe te wallaahi bu jëloon ku bu jëloon turam bëgg lu mu bëgg xam si boppam bu jëlee lii rek da koy xam dakka xa sa yaa iilu dakka xa sa yaa iilu eh, kii nag pour aajo lay dox may xoddaan bi mooy yoosin lii bokk si rawxaan yaa iilu la sant eh, xoddaam sant yoosin moom moom bokk si waaw ñu ñëw nag si jëmm nit ki lii mooy jëmmi nit ki tey boo xoolee kër gii rekk xat-xat lay wax bii muy nopp bii mi ngi wax nattu bii tukki bii jàmmi nit ki bii xaajo bii xalal noonu lay toppante te nga xam ne ne ci côté mbagg mi fii dafa am ko fi ne benn jinne bu ànd ak eh, malaayika xam nga may mun a duñ si leeral bu baax jinne may mun a waaye lii mooy jëmmi nit ki tey jii nit ki boo noon xool ay mbiram ay saraxam fi nga war a mën a jaar fépp fii nga ko lii rek ngay bind boo bindee lii danga xam ba xam nit ki day tux yàmba nit ki nit ki day tux nit ki day njaalo nit ki ñaata doom la nit ki ki mu war a takk nan la mel nit ki ban liggéey moo baax ci moom nit ki bat mooy saraxam chaque semaine ak nit ki ba xam at mi war na fee mën a am doom wala mën na fee faatu ndax am na ñoo xam seen biddiw day làqu day feebar maanaam biddiw wi bu làqoo am problème nag nit ki at moom mën na see am problème at moom mën na see génn àdduna te boo xoolee fii danga koy xam waaw ndax lii nag mooy nit ki dëgg dëgg dëgg dëgg wallahi koo dugal fii turam boo ko bëggoon a yàq tey danga koy yàq si lu gaaw ko bëggoon ndax koo dugal fii tey bu dee nit ki nga bëgg yàq loxo bi mu paralysé fii ngay jaar nga bëgg jaar ci bopp bi mu am problème mu bopp fii ngay jaar te tànk yi nga bëgg tànk yi am problème fii ngay jaar moo tax ram li dafa doon lu doy waar ram ramli moo tax nit ñi fooyewuñ ko mag ñi ko xam li jàng bi ëpp na fukki at ki koy jàng chaque jour ak na nga koy jànge nga lan la siy jàngal moo tax ku ko xam dëgg dëgg dëgg dëgg bu la xoolelee lum la wax wallaahi dara mënu koo dindi ku ko xam nag laa wax ndax léegi moom jamono ji ñi xam nii dëgg dëgg ram li waaye nga dagg nit ki dagg xaati mu nit ki doo gis sax def lii doo gis kuy dagg mu nit ki di si seet ñi ko man bariwul kon nag moo tax daal mm, rawxaan kii bu jëlee rawxaanam bii rek di ko sikkar